asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk Sénégal ñu ngi leen di ziyaare bu baax mbokk bitim réew di leen nuyu bu baax ngeen gi nuyu te di leen ñaanal jàmm mbooleem kuy dégg suñu kàddu rek moo xam yaa ngi ci réew mi moo xam yaa ngi bitim réew ñu ngi lay ziyaare bu baax rawatina ña nga xamante ni ñu ngi jëflante ak ñoom te ñu nekk bitim réew ñu ngi leen ziyaare bu baax di leen ndokkeel di leen ñaanal suñu kàddu fekk leen ci jàmm ak salaam. Hmm. waa kilifa gi kon euh, suñ bëggoon xam Cheikh Abdou Niang moom fan la jàngee ak fan la jaar euh, lan la ñuy wax. Hmm. maanaam man moom maay sëriñ Cheikh Abdoul Mouhayminu boroom xalima gi. Hmm. ñu gën maa xam ci sëriñ Cheikh boroom xalima gi. Hmm. ma nekk as ndaw su xeebu loolu nekk koo xamante ni as ndaw laa soo xamante ni suñu borom subhaanahu wa moo ma dimbalee li nga xamante ni mooy mbirum xam-xam ak mbirum lasraar. ñu gëstu ci loolu euh, te daj si loolu tamit ndax euh, ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ñu ngi siy tedd teyit lépp loo xamante ni sëriñ mu ngi koy am ci lasraar rek suñ borom subhaanahu wa taala may nañu ko ci mm. man nag maa ngi nekk ab dongab daara boo xamante ni xel kom laa jàngee. Hmm. maa ngi jàngee daara ju ñuy wax daaray ndindi daara joo xam ne mooy daaray siis fa laa nekkoon jamonante fa ak sëriñ Saaliw hmm. gannaaw ba fi sëriñ bi jógee nag ci laa nekk daara ju ñuy wax umul xuraa muy daaray Téres yaakaar naa foofu laa yeewi ko may nuyu bu baax waa xel xelkom yëpp te di leen ñaanal jàmm tey ñaan sama kàddu fekk leen si jàmm bu baax di fa nuyu waa umul xuraa sama joo jooju nga xamante ni moom moo ma yaroon di sëriñ Bay Juuf ñu ngi leen ziar bu baax. Mhm. Cheikh Abdou kon ci wàllum seet lañuy dugg seet ndax Cheikh Abdou dana seet wala Cheikh Abdou moom euh, moom bi sa nit fan la koy le ci wàllum ndox wala ci wàllum lan la koy seetlee. Mhm. waaw mbirum seet nag moom dafa nekk loo xamante ni balaa ma ciy ñëw damay wax ne seet dafa nekk loo xamante ni yombut. Mhm. te seet dafa nekk mbir moo xamante ni maanaam sëriñ si ñoom ñoo ko yombal waaye seet yombut. ndax seet jëmmi doomu aadama bi balaa ngaa xam ay mbiram ci mbirum seet. mën naa jël temps waaye ni ma gis seen jenn ñenn ci sëriñ si ñu koy def loolu nekkul loo xamante ni maanaam seet la. Mm-hmm. ndax loolu làmbatu laa ko mën a tuddee ci yenn sëriñ si li ñuy def. Mm-hmm. man seet li ma ci xam bëri na seet suñ borom subhaanahu wa taala dajale na ma si ak yu bëri yoo xamante ni jàng naa ko xool nañ li nga xamante ni moom mooy seet gu wér ñu di ko seetee muy seet goo xamante ni àdduna bi eh, bokk nañ ci ci seet yi nga xamante Euh, borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne seet gi seet gu wér la <clears throat> muy ci seetu biddiw muy ci seet yëpp dañ siy seet waaye seet gi nga xamante ni dañ siy seet tamit muy da am seet goo xamante ni tey jii bu fekkee mbirum sàcc la ak ak lii nga xamante nii mooy mbirum li nga xamante ni doomu aadama bi da koo réeral dañ ko koy seetalee ci ndox. kooku moom dañ ko koy seetalee ci ndox mën nañ koo seetalee ci ndox wax ko ne ko bu ko defee kooku daf koy génne ba génneel ko tur yi ne ko diw ak diw wax ko heure wax ko lépp ne ko moom la sa alal génne ci say loxo heure bii ak heure bi bu fekkee dina feeñaat moom lay ñëwaat ci sa ay loxo waaye yàlla dimbalee nañ ñun ki seetu kurus la ñuy seetee hmm. Hmm, ñun si seetu kurus la ñuy seetee buñ ñëwee boo ñëwee incha allahu rabbi dañ lay xoolal sa ay mbir ci mbirum tabiha xool sa biddiw xool sa yëpp ba pare seetal la ci kurus nag wax la li nga xamante ni mooy sa ay mbir ak say jafe-jafe ak sa ay sarax wax la li nga xamante ni moo lay gàllankoor bu ko defee incha allahu rabbi nga mën see jug su fekkee dafa am ay sangat yoo xamante ni da nga ko war a sangatoo ñu toppatool la ko liggéeyal la ko si ñi nga xamante ni ñu ngi si jëflante ak ñoom incha allahu rabbi képp koo xamante ni daal sa aajo nar naa faju ci mbirum seet euh, bu soobee yàlla suñu borom boo jëflante ak ñun rek danañ la seetal seet gu leer nañ maanaam seet dafa bëri ay façon ndax am na si ñoo xamante ni tey jii maanaam ñoom ci suuf la ñuy seetee. Hmm. am na si ñoo xamante ni ñoom dañuy seetee ci xottu gerte am na si ñoo xamante ni si vantaay la ñuy seetee. Hmm. waaye am na si yoo xamante ni lislaam daf koo xaraamal. te ñun duñ seetee loo xamante ni lislaam daf ko xaraamal. Hmm. ndax ñun dañoo tënku ci sunna te it lépp loo xamante ni suñ diine dañu koo xañ ci xam-xam. dañ koy bàyyi fële lépp loo xam ne suñ diine xañuñu ko si xam-xam Euh, dan danañ ko jëfee ni nga xamante ni noonu lañ ko war a jëfee xam-xam nag dafa nekk loo xamante ni géej la te it mag ñi dañuy wax daan ne xam-xam la maanaam xam dafa nekk loo xamante ni luy nëbbu la waaye nekkul loo xamante ni lu feeñ la sàkkara moom dafa nekk loo xamante ni tey jii boo ko génnee si mbedd mi dana nekk loo xamante ni danañ xam ne yow mi nekkoo li nga génne ni waroo ko génne noonu la mbirum xam-xam demee ba tax na yu bëree bëree bëree bëri sax daanaka doo ko mën a leeral si émission ndaxte euh, dafay dafay laaj temps dëgg te li nga xamante te nii moom nga si war a wax yëpp doog si mën a wax euh, bu ko defee li nga xamante ni mooy mbirum seet ak mbirum nopp man damay gis sëriñ si yombal ko lool. Hmm, wàllum nopp hmm, mbirum nopp danaa si ñëw ak yow incha allahu rabbi. ñu ngi seetlu ay wàllum cancer yooyu noonu yëpp. mu hmm. ngi am ci réew mi ndax sëñ bi loolu euh, kii nga ci. waaw mbirum cancer kooku suñ borom subhaanahu wa taala ñu see dénk garab goo xamante ni moom ni mu koy dindee dafa doy war ndax kooku xam-xam bi ñu si yoree dafa nekk xam-xam boo xamante ni maanaam faju cosaan la. moom cancer. moom cancer. Mhm. maanaam faju cosaan lañ si yore. faju cosaan bi ñu si yore nag dafa nekk faju cosaan boo xamante ni bu wér la boo xamante ni dañ la koy traiteel si kàttanu yàlla suñu borom ba mu saafaraw incha allah rabbi maanaam noob. Mhm. dafa am te dafa bëri ay façon man noob gi may noobee wallaahi alazim laa koy wax. sama bàmmeel laa toog di wax nii noob gi may noobee dafa dafa am ñaari façon dafa am nag nit ñoo xamante ni tey jii boo la noobalee jox leen ñu takk si lay gën a gaaw a jàpp yor naa noob boo xamante ni ku ma ko mënti defal moo xam trois bi yu nga moo xam xawaa yu nga moo xam maa yu nga moo xam naar naari yu nga noob boobu su ma la ko joxee nga takk ko incha allahu rabbi ka nga xamante ni moom laa la liggéeyal noob gi dana la bëgg na yaayam bëggee baayam tey dana la topp ne xaj di toppee boromam te du ko sañ a waaye daf see bëri ñoo xam ne dañuy taxaw ak sobe saa su nekk moo tax boo leen defaree loolu dafay gaaw a toj te noog googu nooraani yu la maanaam xam-xam la boo xamante ni xam-xamu euh, bu bu weex la ni ma ko mën a waxee pour ñu comprendre. Hmm. waaye bu fekkee mbirum solmaani yu dafay nekk xam boo xamante ni loolu sax man bi ma ci yore moom dafa gaaw. Hmm. ba tey jii nii rek damaa toog ba ineer am ku ma woo daan ma sëñ bi euh, soxna si kat wàcc na maanaam soxna si moom daf ne woon day fay pour dellu seen kër. moom mu ngi nekk bitim réew nag soxna si moom dafa woo sax maanaam soxna si daf daf moom soxna si moom moo woo soxnaam daane ko dama lay yóbbante sa dépasse yóbbante la sa sa sa maanaam sa ration ak sa dund soxna si daane ko man bëgguma sa dara téye ko hmm. maanaam bi mu ñëw ci man bi may woo di di ñu koy boole ak man mu war a jëflante ak man waaye wallaahi laa la wax ba ma ko seetee ba xool ay mbiram xam ne lii lii ak lii moo koy saafara ci mbirum seet gu leer naññi ci laa ko wax daan ne ko sëñ bi mu ne ma ma ne ko ma ne ko lii ak lii ak lii moom ngay génnee sarax bu ko defee incha allah rabbi ñu jublu ci liggéey bi ci kàttanu yàlla suñu borom ak mbaaxam ba yàlla defee ñu jublu sa liggéey ba yaakaar naa ne ñetteelu fan ba ba ma ko liggéeyee ne ko bu ko woo bu ko message bul ko wax dara hmm. déglul sa téléphone fii ak trois bu la woowut nga woo ma ma delloowaat la sa xaalis ba ma toogee sa suba sa la ma woo daan ma soxna si béppé na ma. Mm-hmm. ma ne ko bu ko woo. mu toogaat sa ginnaaw suba sa daan na ma soxna si woon na ma di réccu di li mu doon def ak li mu doon wax ay fameem ba ne day dem loolu yëpp tuum na ko. kon daal maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm may wax ne kooku dama see yor ku wér goo xamante ni si xëti laa koy liggéeyee. Mm-hmm. moom moom nopp. moom nopp bi ma si yor dafa nekk boo xam si xëti laa koy liggéeyee xëti yi di naaw. Mm-hmm. laay jël xëti mi dama koy jël boobu xam-xamu sulmaani yu la damay rendi xëti mi saraxe ko. Mm-hmm. bu defee la may soxla ci biir xëti mi laa koy soxlaa maanaam euh, xol bi laay jël boole ko ak la ma koy booleel liggéey ko takk ko ci kaw garab ak kooku fu mën di nekk ci àdduna bi dana la wuy si incha allah rabbi. léegi sëñ bi ku bëgg nopp gaaw nopp gaaw ci 24 heures Hmm. noot boobu waaw hmm. maanaam bu fekkee bii ma lay wax nii boobu dafay dox si jooni jooni jooni jooni boobu moom ak tul gi ma yor ñoo yem hmm. ndax yaakaar naa ne tul yor naa ci yoo xamante ni su ma la ko defaralee dama la koy isin fi nga taxaw moom tul moom tul su la neexee lañ set mën naa la koo jox nga yéeg ko te du la dagg yaakaar naa kooku am naa si ay résultat yi yoo xamante ni adduna bi am na si ñi ma ñi nga xamante ni xam nañ ma bu baax xam nañ ne man loolu sëriñ si nga xamante ni mën nañ ko ci laa bokk seet tamit ma lay xamal ne boo génne woon téeméeri sëriñ mhm. ñett nga si génne ñu mën seet moom seet seet boo génne woon téeméeri sëriñ fii ci Sénégal mhm. ñett nga fi génnee ñoo xamante ni ñu mën seet lañ ci sëriñ si te man gëm naa ne ñett ñooñ bu ma nekkul première maay doon deuxième bu soobee yàlla suñu borom ndax man seet dama see génn dem si gàmbi dem si mortani waaye gàmbi la suñu borom subhaanahu wa dogalee ne am naa fa ay seet yu wér yu leer nañ ñi te ñi ma ko jàngal ay malien ak ay ak ay ak joolaa ak ñooñ ñëpp dama see jaxasoo ak ñoom ah, xam si xam-xam boo xamante ni gëm naa ne lii am na ñu may romb fii ñuy wax ci mbirum lasraar ak ñuy wax ci mbirum seet te yàlla xam na ne loolu ñoom dajaguñ ko. sëñ bi kon wàllum wàllum ku bëgg tukki wala ku bëgg tukki ci tukki bu gaaw wàllum kayit nan nga def ak moom. waaw mbirum kayit moom kooku dama see yor loo xamante ni bu fekkente ni suñ borom subhaanahu wa taala dafa dogal ne yow nekkoo fii ci réew mi mhm. kooku si mbirum kurus lañ la koy liggéeyalee maanaam kooku kurus lañ koy liggéeyee dugg si xalwatu liggéey ko lañ koy liggéey si diirub juróomi fan bu fekkee yàlla dafa def ne mën nañ laa jox loo xam ne da nga koy jëfandikoo si tàndarma lañ koy def jox la ko yow moom ba keroog ngay faatu amatul kayit gooy lijjanti te du sotti si kàttanu yàlla borom kon waaw. Mm. bu fekkee yàlla dafa dogal ne nag moom da sori kooku moom incha allahu rabbi ci mbirum kurus rek lañ la koy mën a jaaralee mu gaaw. ñoo xam ne ne dañoo tàqalikoo nekk ci ab famille boo xam ne juboowuñ ak wàllum yooyu noonu. Mm-hmm. léegi ki gi ndax mën ngaa def bañ juboo mm-hmm. maanaam koo xamante ni danga yor sa njaboot te mënuñoo juboo mm-hmm. kooku dama koy liggéey. kooku ci sóoratul mulki laa koy liggéey liggéeyal la ko ba dangeen booloo yéen waa kër gi ba mel ni yéen mësu leen a amalante benn mer wala mësu leen a amalante benn àq incha allah rabbi. sëñ bi sànq dama laa gis nga yow eh, ay kayit wàllum kayit yooyu doo leeral askan wi kayit yi lan la. maanaam bu fekkee mbirum kayit yi nga gisoon ma yor nii. Mhm. Ah, gis nga lii sëñ bi képp koo xamante ni jox na la yàlla def na ma jox la ko benn bi rek maanaam nga jëfandikoo ko weer. bu soobee yàlla suñu borom yow moom di nga nekk millionnaire ci ci at moomu incha allahu rabbi te da nga dem ba nekk milliardaire ci kàttanu yàlla suñu borom subhaanahu wa kii dafay ànd ak wasasoor ak euh, yoo xamante ni mënee su ko wax ci biir émission bi hmm. waaye bu fekkee kii nag moom yàlla dafa def ne moom alam nasara euh, la lañ ko lañ ko liggéeyee moom tamit mu nekk koo xamante ni mu nekk euh, mbir moo xamante ni mbind mu doy waar la ci maanaam li nga xamante ni mooy mbirum wërsëg moom tamit moom moom wurus lay àndal hmm. waaye bu ñu la ko joxee ba expliqué la ko bu soobee yàlla suñu borom ba nga def ko ni nga koy def incha allah rabbi da nga am wërsëg hmm. bi koo xam ne ne moom day dem rek koo xam ne du toog daal hmm. maanaam koo xamante ni du toog moo xam jigéen juy fay di dama ko ñëw la wala mu nekk koo xamante ni dafay fàq di dem wala mu nekk koo xamante ni maanaam du du du sawar ci toog. Mm. mën nañ koo naawtal wala yu mel noonu yëpp incha allah rabbi li ñuy def buñ ko xasee ba def ba dott ko ci kàttanu yàlla suñu borom dootul mës a génnati kër gi maanaam di taxawaalu taxawaal bu yàgg sax te ñëwaatul. incha allah rabbi bu fekkee yàlla dafa def nga déposé ay kayit moom kooku yaakaar naa waxoon naa si sax ne maanaam bu fekkee da ngaa sori dama la koy liggéeyal ci mbirum kurus laa la koy jaaraleel su fekkee yàlla dafa def ne nga nekk fii ci biir réew mi nag ba yàlla def nga mën a jote incha allah rabbi ci mbir mi. Euh, mu mën a yomb ci yow kooku incha allah rabbi ci tàndarma lañ la koy liggéeyal nga jëfandikoo ko te du yàgg dara bu soobee yàlla suñ borom nga gis kayit yi nga xamante ni moom nga déposé woon. sëñ bi ku am faru rab na koo xam ne rab da koy daaneel guddi gi sa koo xam ne daal kenn mënu ci moom dara dafa am ay rab yoo xam ne kenn mënalu ko dara ndax mën nga koo faj ba mu wér ba mu ne cocc incha allah rabbi maanaam ki nga xamante ni yàlla dafa def mu yor ay rab moo xam bu fekkee rabu cosaan la nag kooku moom dañ koy seetal wax ko sarax yi nga xamante ni moo koy calmer ak yu mel noonu bu ko defee kooku faw rek dafay dem maanaam ci li nga xamante ni mooy cosaanam ndax rabi cosaan nekkul ay caaxaan waaye bu fekkee koo xamante ni rabu saytaane yi nga xamante ni moom moo ko dugg Euh, ngelaw seytaane ak li nga xamante ni mooy ay faru rab yi nga xamante ni junne seytaan yi moo seyaatiin yi ñoo koy gis rek maanaam sopp ko dugg ko bëgg koo yàqal afaniram wala ñu bëgg koo gàllankoor ba nga xamante ni maanaam ci wàllu néew kàttan bu dee jigéen mën nañ ko téye muy ga yeex am jëkkër ak yépp hmm. waaye bu yàlla defee daal bu soobee yàlla suñu boroom nga ñëw ñu seetal la ko seet gu leer nañ incha allahu rabbi moom du am ci yow juróom-ñaari fan sëñ euh, yi nag euh, xam naa dañuy dugg ci actualité bi fan yi nag ñi gis réew mi ay wax ci komba mutloo ak Ama Baldé léegi nag ñu lay laaj ndax combat boobu ndax ndax moom dana antu wala lan nga ci gisagum. waaw mbirum combat bi nag moom dafa nekk loo xamante ni maanaam coow li bëri na. Mm-hmm. coow li bëri na nit ñi ñu ngi wax ku nekk mu ngi wax la nga xamante ni moo si sa xalaat waaye suñ borom moom pare na ak loolu bu yàgg. Mm-hmm. liñ siy ñaan nag mooy jàmm ak salaam te loolu la ñuy ñaan ci réewum senegal gi suñ borom subhaanahu wa sotti ko fi ak ay xéewal. Mm-hmm. làmb moom dafa baaxoo coow. Hmm. beneen bi si topp mooy combat Ama Balde ak muuduloo Lo bi li ñu siy ñaan mooy jàmm ak salaam waaye daal li nga xamante ni moo si am mooy xam naa ne muuduloo Lo. Hmm. Euh, ñu ngi rafet njort si moom bu baax daal. moom Modou waaw ñu ngi rafet njortu si moom bu baax a baax. waa Modou moom rafet nañ si njort bu baax ne moom daal moom. li si kanam daal rawati bët am na si loo xamante ni mbirum suñu borom la nañ ko bàyyi ak suñu borom subhanahu wa taala duñ fi nekk naan kii mooy daan wala kee daan wala yu mel noonu waaye daal moom kenn ku nekk sañ ngaa rafet njort si nit sañ ngaa tamit am yaakaar si nit waaye am nañ yaakaar bu baax si Modou Lo waaw loolu moom dañ koy wax waaye duñ fi nekk naan kii mooy daan ndax am nañ ay soppe yoo xamante ni dañ ñoo sopp te dañoo sopp ama am nañ ay soppe yoo xam dañ ñoo sopp te dañoo sopp Modou Lo mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi combat na ñu bëri ñu naan ne léegi lan lan la nga gisagum ñuy wax loolu ñaan combat bi am na ñu taxaw temm pour yàq ko ba nga xam ne combat bi du am. waaw ñi koy wax noonu ñu bëri moom man damaa gis ki leen jàngal seet. Mhm. xam ki leen jàngal seet. Mhm. ñu si bari bëri maanaam teewuñu lan mooy dëgg-dëgg yi mbootu seet boobu ñuy seetee. Mhm. làmb ku koy seet faaw nga mën jëllale. sëriñ bu mënul jëllale mënoo seet làmb sëriñ si si wax bari na si ñoo xamante ni dañ leen di woo di leen seetloo ñu may woowaat. ñoom sëriñ si ñoom sëriñ si bëri na si lamb ji bi mu desee trois mois la nit ñëw si man yëkkati xaalis di ma ko seetloo si ñoom ñooñu nga xamante ni bëri na si bëri na si ñoo xamante ni maanaam jaar nañ si man ma seet ma seetal leen si. ci mbirum làmb jooju. ci mbirum làmb ji. Mhm. ah kon de gars yi yéen a ko déggandoo. Mhm. léegi ku bëgg a falu koo xam ne ne day xëccoo nguur wala muy xëccoo wàllum état. Mhm. Euh, ndax mën nga koo ñaanal ba mu falu ci lu gaaw te du am benn gàllankoor. incha allah rabbi kooku bu fekkante ni ku bëgg a falu la wala koo xamante ni dangay def examen wala ngay xëccoo dara. loo mën di xëccoo palaasu liggéeykaay ak lu mu si mën di doon kooku bu soobee yàlla suñu borom duñ génn ak yow li nga xamante ni mooy fukki fan ak ñaar ñu liggéeyloo ko bu soobee suñu borom ba nga jot la nga xamante ni moom nga doon xëccoo moo xam ci mbirum état la moo xam ci mbirum leneen ak leneen lu mu si mën di doon daal si kàttanu yàlla bu ñu si déggoo incha allah rabbi ba nga woote ci numéro yi bu soobee yàlla suñu borom des na la ko des na la ko seetal ba mu leer wax la position yi nga xamante ni moom ngay taxawee ak yoon wi nga xamante ni sa lañ lay ñaanalee yàlla ba nga jot sa incha allahu rabbi te du yàgg. Hmm. Hmm. suñ bi président Ousmane Sonko fan yi ñu ngi gis ñu téye ko ci kaso bi du yàgg. am hmm. nañ am na sëriñ si wax naan Ousmane Sonko moom du falu ci 2024 bi am na ñoo xam ne nee nañ tamit euh, euh, balaa élection yi dana génn am nañ am na ñu wax ne ne du génn moom lan nga gis ci ay mbiram. waaw président Ousmane Sonko moom dama see yàgg a wax sénégalais yi ne leen. Hmm. defal leen ko ay sarax. moom Ousmane Sonko. waaw ñu di ko ñaanal jàmm bu baax tey ñaanal euh, waa réew mi yëpp di ñaan suñu borom subhanahu réewum Sénégal gi nga xamante ni benn bopp la te kenn mënee su koo xar ñaar. Hmm. suñu borom dogal fi jàmm salaam te sotti ko fi. Hmm. Euh, Ousmane Sonko dama leen yàgg a wax ne leen génneel leen ko mburu waxtu naaju tàng jër ngeen di si def bër te di ko saraxe loolu bu ngeen ko dee def. yéen ñi nga xamante ni yéenay waa Pastef yàlla mën na leen dimbali ngeen am ndam ànd ak seen candidat ngeen am ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam man nag moom politique moom daanaka boo xoolee dama dul wax kenn mënul xam fi mu ne nii fan laa féete ba xam maa ngi ci Sonko wala maa ngi ci Macky waaye en daal moom noonu rek laa ci mën a waxee daal. Ah. Hmm. waaye daal ku bëgg a falu bu ñëwee ci yow da nga fal ci lu gaaw. incha allah rabbi ah. maanaam bu ko defee daal. xam naa fi la ñëw tëjee sax ndax daanaka boo xoolee dafa mel ni jot mm. amut mm. te daanaka boo xoolee dañuy nekk si liggéey ba daanaka dañuy xat yenn saa ba nga xamante ni daanaka li nga xamante ni moom la ñu war a def yëpp daf ñuy ñett bu ko defee ñu ngi tuub bu baax tey jéggalu mm. te di leen baalu àq di leen wax ne kàddu yi lépp loo xamante ni rafet na si rek na ngeen xam ne euh, euh, maanaam ndogalu suñu borom subhaanahu wa lépp loo xamante ni maanaam njumte la si ñu ngi koy tuub te di ko jéggalu te di wax ne doomu aadama matul di leen wax ne daal képp koo xamante ni nga ñu si wàllum listixaara wala nga yittewuñ ci wàllum seet mën nga maa woo ci numéro yi nga xamante ni moom laay bëgg a joxe numéro yi nag képp koo xamante ni sa aajo nar naa yàlla bu defee ñu déggante rek bu soobee yàlla dañuy daal di déggoo sa la nga xamante moom nga am ay yitte muy 78 168 70 85 78 168 70 85 wala nga woote ci 76 233 06 24 ñaar yëpp am na whatsapp incha allah rabbi euh, di jéggalu bu baax si ñi nga xamante ni dañ may woo wala ñu may envoyé message nga xamante ni daanaka message yi mën naa toog ñaari fan sax du ko liir di leen wax ne ku ñëpp soxla maanaam da loolu nag ñu ngi koy tuub bu baax te di ko jéggalu te di leen wax ne képp koo xamante ni woote nga jotoo incité rek yàlla mën naa def temps am bañ jël la incha allah rabbi hmm. Hmm. kon mbokk yi kon yéen a ko déggandoonu jëmm ji mooy wuyoo ci tuubu Cheikh Abdou. Hmm. borom xalima ji moom lañ dalaloon. Eh, képp ku ko bëgg jot daal numéro yi mi ngi ci barre de écran bi nii ngeen woo ci nu mu gën a gaaw mu taxaw say eh, say bëgg-bëgg faj ko ci eh, ci ci ñaan yàlla. ci alxuraan ci ci sunna.